auditeur u Sene Info euh, tey euh, si seen euh, émission les mercredis du docteur Konaté euh, toujours euh, si même euh, lancé bi defoon si feebar yi nga xam ne moom nañuy gën a gis si hivernage bi bon feebar bu ko nuroo am na wax nañu waxu palu wax nañu waxu Covid dañuy wax tey encore toujours dans la même lancé loo xam ne nuroo na ko nuroo na palu nit ñi dañ koy jaawale tout le temps loo xam ne nuroo nuroo nuroo na Covid également nit ñi dañ koy jaawatle tout le temps tey dañuy wax euh, waxu grippe. grippe euh, donc euh, feebar la boo xam ne feebar buy wàllaate la ah infection virale la te virus bi nga xam ne moom moo koy euh, andi mi ngi tudd myxovirus donc dañu choisir pour wax si parce que dafa nekk feebar boo xam ne day andi ay épidémie épidémie c'est-à-dire si dëkk yëpp lay jaar si dëkk yëpp lay toucher et biñ ko xawee comptabiliser tuuti ça touche entre cinq et quinze pour cent donc de la population mondiale donc ay milliards ak ay milliards donc d'individus euh, sont touchés par euh, la grippe euh, particularité am grippe ah toujours suñu leen waxee grippe dafay am ce qu'on appelle des signes respiratoires donc loolu moom moo koy euh, wutale le plus souvent ak euh, feebar yi nga xam ne euh, wax nañ ko auparavant naka la grippe di yegsi naka len leen di wàllee toujours comme Covid grippe donc dafay dafay walaate bu fekkee nit ki dafa sëqat wala dafa tisoli mu tas ay euh, gut goutteletam les gouttelettes yi yeneen nit ñi suñ ko respirer rek euh, wala mu am loo xam ne dugg na ci seen gémmiñ rek donc euh, la la maladie démarre donc ay deux à quatre rek euh, nit ki jël jël jël grippam ainsi de donc dafa nekk feebar boo xam ne su duggee dans une famille très rapidement ñeneen ñi dañuy jël parce que tout simplement euh, nit ki mun loo ko empêcher mu sëqat mun loo ko empêcher mu tisoli su la rombee sëqat wala mu romb la tisoli rek yow tamit nga jël bu fekkee diggante Pape ak euh, xale yi wala diggante xale yi ak seen yaay wala seen maam donc euh, la contamination donc euh, se fait donc très très très très rapidement am na beneen façon contamination boobu loolu la moom mooy con contact direct bi donc fii Sénégal dañu gaaw a joxe loxo donc nit ki day def grippam fële. après ñëw commencé nuyoo joxe loxo et facilement donc mu euh, contaminer <coughs> les autres membres de la famille maintenant bu fekkee dafa contaminer euh, naka lay euh, manifesté woo donc manifestation yi le plus souvent c'est une euh, fièvre d'intensité qui peut être modérée jusqu'à très intense hein donc intensité fièvre bi dafay variable à part euh, fièvre bi on peut avoir ce qu'on appelle des frissons donc nit ki dafay jékki-jékki mu mel ni dafay liw mu am euh, ce qu'on appelle des douleurs articulaires douleurs articulaires et des myalgies c'est-à-dire euh, yaram bi yëpp di metti donc ci kaw loolu mun na am ce qu'on appelle des signes respiratoires signes respiratoires yi mun na nekk euh, benn écoulement nasal simple mais mun na dem joxe la jox la ce qu'on appelle une toux la tout au début elle est sèche et euh, progressivement mun na dem euh, Euh, elle devient grasse donc euh, nit ki di génne ce qu'on appelle euh, ay xaaxandiku donc ci kaw loolu yëpp ah am nañu yeneen signe notamment une fatigue une fatigue inhabituelle donc nit ki euh, dafay yëg coono ci euh, yaramam et puis ak coono boobu mu ànd ak euh, ay ay ay ay ay maux de bopp bi donc dafay metti et dafay nekk en général ay metit yoo xam ne dafa tar ba foofu nit ñi donc ils peuvent Euh, avec ou bien sans traitement hein, les gens se, euh, peuvent guérir très rapidement mais en l'absence de traitement euh, ce sont des risques hein, que, que, que, les gens se prennent parce que euh, peut-être qu'on n'en parle pas tellement, mais une grippe, elle peut être mortelle parce que Euh, elle peut être à l'origine euh, d'AVC ah donc il benn émission boo xam ne on va parler des AVC euh, elle peut entraîner ce qu'on appelle un infarctus du myocarde c'est-à-dire euh, li ñuy wax communément arrêt cardiaque donc nit ki am grippam génn di doxantu tak daanu ah cœur bi arrêté euh, wala crise cardiaque ah en ce moment-là donc ce sont des complications donc euh, soo leen euh, defee seen grippe euh, très rapidement ñëw leen seet si les professionnels de santé comme ça on vous on vous met un traitement qui est adéquat et puis ñu euh, leen et puis les choses vont se mettre en place donc très rapidement donc euh, en général je vais euh, je vais terminer donc par le traitement le traitement c'est un traitement qui est simple euh, repos la et puis di ndox bu baax jël ce qu'on appelle ay antalgique jël parfois ay anti-inflammatoire et pour la fatigue le plus souvent dañ leen di euh, conseiller pour ngeen jël tuuti vitamine C donc euh, soo leen defee loolu rek en général euh, ça se passe bien e stade boobu bu fekkee dafa dépassé soo leen ñëwee ñu euh, mettre leen sous ay perfusion perfusion yi le plus souvent ay vitamines l ak ay antalgiques et puis euh, en général les choses se passent bien il une prévention une prévention c'est également un traitement la prévention c'est la vaccination et vaccination bi il faut faire ça chaque année surtout chez des sujets yoo xam ne à risque c'est-à-dire les diabétiques euh, les sujets à âge et parfois les enfants donc euh, je vais terminer donc euh, l'émission Euh, di pour jox leen euh, dig daje euh, la semaine prochaine et je vais pas terminer sans remercier équipe bi nga xam ne ñoom ñoo may accompagner tout le temps Ndofène ak Abdel donc di leen remercier ci seen disponibilité et puis maa ngi remercier également sama. Euh, personnel waa clinique euh, médicale Keur Marie c'est un personnel euh, vraiment qui est très dévoué ay jàmbar yu ñoom ñoo fi nekk donc nekk fi ak man donc pour régler les les les les problèmes donc de santé merci au revoir et à la semaine prochaine